am vacances à Dakar ñu ngi fi ñoom it ñu ngi toog jàkkaarloog petit écran bi di teewlu li nga xam ne mooy gis-gis nga dem ba Mauritanie la famille ay dara à Nouakchott ñoom ay Aysatu Moulay Aydara ñoom Abdallah Moulay Aydara les petits-fils de sëñ ay dara ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu baax di leen gërëm di leen sant ñoom euh, ki nga xam ne mooy Maam Jaara Mbuur Soose ñu Awa Ñang Sicap fii rue 10 moom it taalibe seen Cheikh Mbacke Gaynde ma bi Marietou saw kooku ma nga Ndar depuis Gandon Rose de la Saint-Louisienne Yacine Ndella Fall bu Baara Gueye moom mi ngi caaro yi Orix ak ki nga xam ne mooy Ndey Koddu Dieng bu Mansour Fall maa ñu ngi leen gërëm di leen sant bu baax Mati Diagne Fall waa caaro yi géej yëpp maa ngi leen nuyu Soxna Diouf Ndiaye dit Soña maa ngi leen nuyu baax la gërëm sa sant ak ma Diouf baax a baax. bonsoir Ben. waaw <laughs> yi ñuy seetaan seen TV yëpp et di nuyu ñu ma bokkal plateau bi Aminata pay Sophie ak Père. Mm-hmm. du nuyu tuuti mais de filles ak maman Fifi ak Mona Lisa et puis di nuyu Timaka yaayu bébé Mariama. et euh, di nuyu waa jaspora bi euh, surtout waa États-Unis ça fait euh, tey ça fait dix-huit ans. Mm-hmm. bi nga xam ne la onze septembre amoon. mu fekkoon ñu ñun ñu nekkoon États-Unis mu doon jour boo xam ne monde bi yëpp yëngu woon na mhm. muy 19 ans tey 11 septembre 2001 11 septembre 2019 di ñaan yàlla ñi si faatu ñoom ñëpp yal leen yàlla yërëm xare leen àjjana moo tax tey damay nuyu waa États-Unis ku si mel ni euh, Modibo maa ngi koy nuyu bu baax bu Allo Dakar di nuy salaam di nuy Tige ak di nuy Mr Aw sama partenaire boobu nga xam ne ñoo daan defandoo booy Tan Show et puis di nuyu euh, un petit am benn booy ñu koy wax Amath Diouf Pape Diété ak Debbo ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. di nuyu waa États-Unis bu baax. et <laughs> sans oublier Mami Diop kooku moom sama sœur la sama lépp la mais jëkkëram rek laa mënul nuyu te tudd naa turam donc euh, di nuyu diaspora bi yëpp daal. Mm-hmm. waaw Amath bu baax a baax a baax. non yow yaa ko namm xam nga mën nañ ko raxasal kaas yi ak barada yi suñu paree ñu ñëw nga accaay nañu y' a pas de na boss Aminata Faye Aminata <laughs> waaw moom mooy wax nga dëgg de mooy boss Aminata mais ñun ñooy bossam euh, leen wax yu gis-gis ak seen TV bon waaw man li ma métti rek mooy suma gaañ nga quoi suma boss bi nga bëgg a jël def ko sa kii rek. di ko nuyu moom ak maman Diop suma xarit di nuyu Sophie ensuite Safia di profiter. profiter ci occasion bi di souhaiter à Paye Family seen huit ans d' existence yi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def ay ati ati at ànd bi mhm. gën a rafet. Mhm. et dans quelques heures ce sera mon anniversaire. Ah, loolu laa bëggoon wax. Mhm. voilà man fàtte ma ko happy birthday. oui <laughs> je vais je vais vous je vais vous mettre au courant dans quelques heures ce sera mon anniversaire. Bon, va fêter ça ensemble donc tout à l'heure on chanter père va chanter man dinaa woy ñëppay woy ah, ah. ma doole bu ma man de woy tey pour Aminata Paye. man dinaa woy. xamante demewuñ noonu donc di ko <laughs> woyal. waaye yow xoolal bàyyil Aminata Paye. nga Aminata sama xaritam la. père papam la. d'accord Aïcha Sophie bonsoir. bonsoir Sophie ça xam nga rek. dañ ko dañ ko dénkaane dinañ ko <laughs> dinañ ko récupéré waat yàggul dara. d'accord dindi naa ko mais dama koy defaat ndax ci laa dëkk. daa mel day pare seen guddi gi de. ah mu ngi noonu de guddi gi waaw waaw guddeem gi ndeysaan ñu bari kii ndaw si sant Sarr nekk ci veuve yi. mère Adama mère Adama eh, ndeysaan nee na na ko waxal Mariam Sall ne ko. Mm. nag yi bari na indil nañ ko ñaari nag. na message bi. Mariam Faye Sall ma lom nan. Ah, ak nan waaw mo ah kay nag lañ leen jox ak li ñuy mooñ di waaye nee na dañoo bëgg a jóg ci veuve gi. Ah, nee na mbarkaay li metti na. waaye est-ce que gëm nga ne nga ne. léegi ñu ñëw ci ñoom xool xool wax leen lan lañ jóg ci veuve ah, est-ce que woon na ma pour ñu wax si. maanaam nee na kii na ko Mariam Faye dugal ca salle de banque tànk yi nee na su ko dugalee ca salle de banque teg chaise yi. ba comme ni ñuy def conseil des ministres teg chaise yi nee na jënd pañe góoram teg. ñuy tànn loolu di la wax. parce que borom Touba Mbacke. pour yow lan nga pour ñuy tànn si bi di leen tag dama ne moo a ko wax ma waxuma dara bul ma sosal de. waxuma ko de. Eh, so comment vas-tu moom dañ ko yóbbante rek. Ah, alhamdulilah Sophie ñu ngi nuyu mbokk téléspectateur Sen euh, mm-hmm. ñi ma bokkal plateau bi di leen remercier comme d'habitude ci invitation bi di nuyu tous les membres de la association les racines de l'espoir xam nañ ne jamono ji ñu ngi ci coono mais tamit di nuyu sama tonton bi nekk Italie di suivre émission bi tonton Djibi bonsoir tout le monde. bonsoir Sophie ay ci kontaan nañ bu baax papa. waaw tey fan la ñuy dugg ñu ngi nuyu suñu xaritu internet yi ñoom itamit ils sont tout le temps euh, di seetaan euh, émission bi di gis gis sur sur le net sur la page Sen TV l'officiel sur Facebook kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax a baax ñu ngi leen di 88 628 89 90 88 628 28 28 ñi nekk extérieur 00 221 33 841 parce que tey moom ci yéen lañ jëm. ay ca papa ma nuyu la kan. Eva Tra. maman Eva maman Eva Tra ñu ngi koy nuyu bu baax sera invité incha allahu rabi si tout va bien. ci émission bi peut-être la semaine prochaine wala dans deux semaines. <laughs> sama yaay boobu ay ci kontaan nañ papa ñu ngi lay jox. Euh, fii tey doonoo ñëw nu dugg ci relation à distance. Mhm. ñu def deux points daal ne l'amour tient sur un fil relation à distance l'amour tient sur un fil. Mhm. relation ah. qu'à un fil je crois. ah tient-il un fil. lii lan ma jox ci rédaction bi. ah d'accord papa. Mhm. l'amour tient sur un fil moom la wax ñu toog ñu ne. relation maanaam ab séq ab diggante ab diggaale jàpp na ñaari way dencante jàpp na ñaari labatante aussi ndax relation lañu wax ñaari way dencante muy ngit ak soxnaam walla ñaari way labatante ngoro gu dëgër dëgër dëgër dëgër ñu ne nag mu tollu ab diggante boo xam ne bu sori la am na aw dikk ñu ne kii mi ngi fii kee ma nga Europe maanaam daal tukki am na ca aw yoon ba ca tukki amee aw yoon ñu ne ndax rek mbëggeel ak euh, diggante ndax mën na loo dem ba wékk ko ci ak buum gu sew a sew a sew a sew buum gu sew googu mooy lan mooy xam nga ne yor lu toll ne sa soxna ñu ne alxëyri amatoo lenn ci moom wala amatoo yenn kàddu wala benn bànneex ci moom bu dul su ngoon jotee wala guddi jot ba mu leer na ne demoo fenn nga ne ko kar téléphone mu wuy la ngay jokkoo ak moom jokkoo boobu dong ngeen ca am. ñaare nag di nga gis koo xam ne day dema dema dema dem ba xaddi am su xaddi amee ab safaan mën naa am ca diggante ba di nga gis koo xam ne dina nekk ci seen kër. yow ku góor ki nga wàcc ko fi dem daal di tukki mu dem a dem ba ab safaan am ci diggante ba ndaxte diggante bi daal ci buum gu sew rek na nga ko teg muy téléphone allo nanga def dégg nga maa ngi lay laaj gisuma la doo gis ab xarkala moom du la gis du ñëpp a yem su loolu démb ak bërki démb daa nga gis kuy muñ muñ muñ muñ ba seey ba toog ba li muy muñ faju mbaamu mu ñàkk faju di nga gis kuy muñ ba dootul gis borom këram du ko dee toog ñooñu ay muñkat nanu woon mm-hmm. léegi nag muñ doon ko wutal àpp mm-hmm. te nee na loo wutal ab lu nekk lu nekk loo wutal ab rek boobu naroo ko woon. dalaa ñorul sax. waaw dalaa ñorul. Mhm. muñ naa ba mu muñukaay fii laa mën a yem wala fees naa wala ndab li rembat na wala tuuru na ah léegi damay ñaan baat ah léegi damay tas ah wala ah ndigal ma sàccantu sooy sàcc suñu borom di indi ndogal hmm, coow daal di yëngu-yëngu daal di am ab safaan am léegi nga nekk ci guddi gu sa setagul sàcc rek. wala ko nekk fële sax moom yàlla nattoo na ko mën naa sàcc te du feeñ fu dul yomal xëyam mais kii mën naa sàcc am ndog fekk ko ci waaw kii moom kii moom mën naa sàcc. am ndog fekk ko ci. ça ku jigéen ki. ah ku jigéen ki. waaw mën naa sàcc am ndog fekk ko ci mais kële moom. Mhm. ñaare bari na ca ñooñ doon sàcc te dara du leen ca fekk ndax la nga xam ne ñoom dig na leen ca comme du ëmb du nu gisum pot du nu gis dara la leen ca jig jigu ci ku jigéen ki. dëgg la waaw waaye nag léegi léeg góor gi dina sàcc ba musiba tamit daal di ko cay fekk. Mhm. waaye ku jigéen ki mën naa sàcc mooy gën a fësle te fekk na muñu kaayam jeex na. toog fukki at fukki at ak juróom gisoo góor amoo koy waxal góor nekkul sawet néewun la na ndong sa ah mbankaay dafa metti de mhm. yëf yi mbubb la de bala nga koy solo kenn da nga koy natt sa bopp ba pare da koy natt ci sa bopp ba pare nekk ca bërëb loo bëgg am ko loo bëgg a faj-faj ko soo bëggee lëkkaloo lëkkaloo soo bëggee jàdd jàdd kii moom toog fi mu toog rek ne rek ah, ñi koy dékku de am na sax ñu muñ a ba ménopause am na ñu muñ ba ménopause <laughs> ndax gisatuñ ko gisatuñ seen borom kër te mënuñu faa jóge ndax nee nañ jóge fa aw xas la ba seen borom kër demee ak léegi fukki at ak lu topp metti na waaw metti na metti na loolu waaw euh, euh, sujet bu grave la de mais man euh, li ma si xalaat mooy ki si gën a perte daal mooy jigéen bi quoi parce que góor mun na tukki am foofu jabar on va dire que c'est c'est normal mais jigéen mënul am ñaari jëkkër. Mm-hmm. et puis euh, la plupart si jigéen yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal li leen di gën a sonal des fois mooy bu ñu amul jëkkër boo xam ne euh, il est compréhensif un tout petit peu sëy boobu du mot sax ay euh, at parce que sëy boobu day tas. parce que société sénégalaise moo doxee noonu dame bi bu boobaa elle sera obligée bu bëggee turam di rafet ci jëkkëram mu nekk prisonnière elle peut plus sortir elle peut plus aller fi nga xam ne moom bëgg na fa dem parce que buñ koy gis ci biti waxuma sax famille jëkkëram mais société bi mooy njëkk ne ah kii de bu jëkkëram demee moom ba léegi day dox day dox rek kii daal toogatul mm. donc nga gis ay dames yoo xam ne ñu ngi fi comme ni ko per waxee dix ans quinze ans mm-hmm. munoo gis sa jëkkër mm-hmm. je crois kooku bu fekkee dafa war a toog mu ñaale loolu ba pare muñaale pression bi nga xam ne des fois jëkkër ji daf koy jël ne ko da ngay dem sama kër ay parents nga toog fa mm-hmm. mu war fa nekk di fay def lu nekk ah. ñooñu est-ce dinañ ko may jàmm pour mu mën a toog supporter pression boobu parce que su boobaa kër googu muy nekk kër jëkkër ji la mais est-ce que loolu rek dina doy pour relation boobu am àpp lu tax may wax loolu mooy bu fekkee kër gi mu dem ñooñu amuñu yërmande xam ne kii elle souffre deux fois soo mari nekkul si wetam ba pare mu nar a sëyal ñoo xam ne moom warul sëy ak ñooñu daa y'a problème mhm. su ma ne warul sëy ak ñooñu mooy ki nga xam ne la war a sëyal ki nga xam ne la war a nekkal nekku fi kooku dem na bitim réew pendant dix lay am des fois le mari du jël sax xaalis teg ko ci loxo jabar jooju day jël xaalis teg ko ci loxo yaayam ne ko récleel ma sama jabar lii ak lii mel ni cette dame elle n'est responsable à rien. d'accord xam nga euh, balaa li ngay wax yooyu yëpp di am Sénégal euh, ràññewoon nañ fi benn affaire bu am cest à quelques années avant xale yu jigéen ñi mbégte la woon wala mën naa ne chance la woon pour ñu marier ak immigré c'est-à-dire koo xam ne mi ngi Italie wala mi ngi France wala mi ngi États-Unis wala mu ne mu ngi mu ngi fu mu nekk donc c'était un choix waaw on va dire moodu moodu en général donc choix la woon c'est-à-dire ñoom mbégte la woon wala mën naa ni euh, mu ngi mel ni ngay nga nga gagné benn affaire ci ñoom loolu la woon que nga nekk di sëy ak koo xam ne nekk fii et c'était un choix boo xam ne danga koo jël ne damay nekk ak koo xam ne moom dafa tukki ki tukki nag dëkk jàmbur la dem mhm. à mon avis mhm. dëkku jàmbur la dem du may boppam du moom mooy may boppam ah du moom mooy defal app boppam ci mu mën di dem ak dikk parce que am na dëkk yoo xam ne xam nga ni am na dëkk yoo xam ne boo fa nekkee sa visa bu jeexee soo xasee ba génn doo fa duggaat donc ñu ci bëri dañuy toog foofu a génn daal di ñibbisi war a mën a delluwaat léegi en attendant ces années là ñu ci bëri dañ ciy souffrir mais peut-être ñoom jigéen yooyu nga xam ne euh, dañoo dugg ci yooyu maîtriser wuñu woon li nekk ci biir yëpp liñ doon gis rek mooy li nga xam ne moom la yaay yi di gis instant yi mm-hmm. mooy sama doom nekku fi dafa tukki wala sama jëkkër nekku fi moodu moodu la est-ce que loolu mooy conséquence bi am instant bi nii parce que euh, ba ñu annoncé thème bi am na ñoo xam ne ñu ngi naan ñu seen jëkkër takk nañ leen depuis 2010 euh, léegi ñu ngi ci 2019 ba léegi gisaguñu seen i borom kër mais à qui la faute parce que choix woon au préalable parce que bëggoon nga am li nga xam ne mooy euh, euh, mooy li sénégalais yëpp bëggoon autant yow da nga gis sénégalaise bu bëggoon loolu autant wala dafa am benn. mais loolu moo fi nekkoon ñun ñëpp tegoon nañ ci suñu bët ma wax nag da ngeen may dégg. Ah, non non dama leen di bëgg expliquer. loolu mooy yéen seen xalaat. Ah, moo amoon Benoît. parce que non non écoutez. Benoît attends on va pas être là. di wax loo xam ne tamit. non ngeen toog ne ma ngeen toog ne ma. d'accord que c'était le choix de certaines filles sénégalaises. d'accord loolu moo amoon. d'accord am na ay jamono ku amoon borom kër. Modou. da ngay déglu amul ma borom kër xam nga moo gën

jege. y a des yoo xam ne fi Sénégal nekkoon la ñu nekk éducation de base bu wóor la ñu am. d'accord dara faqul seen bët boo leen waxee loolu ces genre de filles ça veut dire que ñooñu. seen parents yi amuñu woon yenn moyens wala ces filles là doonuñu ay filles yoo xam ne c'est des filles de valeur. Mm-hmm. man soo leen di wax je parle des filles de valeur yoo xam ne fa la leen alal fekk faale wuñu kuy voyager faale wuñu ku nekk bitim réew man je parle de ces filles. fille bu fekkee ma te moment boobu les sénégalaises li ñu doon bëgg a ñoom ñëpp. ndax groupe bi mais attendez. Oh, d'accord ça n'a ça n'a rien à voir ak am valeur ak ñàkk valeur. mais si mais si valeur la parce que yow mii ne dañu doon toog amuñu rêve bu dul waaw ku nekk bitim réew ma ne c'est faux ma ne c'est yooyu am na jigéen yoo xam ne ñu ngi fi woon di xool ay góor yoo xam ne Sénégal kese lañ nekk. waaw ku nekk sa choix kon boo waxal ku nekk sa pas globaliser. xam nga nga introduire ba pare léegi. dañuy may ñu ñu globaliser non benn on globalise pas mais dañu bëgg ñu comprendre rek pour ne pas aussi que nit ñi comprendre de travers dañu ne man boog dama ne. am na ay temps sax la woon pour ñenn ñi ñu génn wala ñuy nekk di sëy ak koo xam ne mi ngi à l'extérieur c'est pas parce que dañu nekk ay nit maa ngi ciy ñëw. du c'est pas parce que nit ki da ngay ñàkk valeur ou pas. Mm. mais phénomène la woon bu amoon. comme mm. instant yi li fi ay yenn yi xewee. Mm. c'est-à-dire demoon nañ ba société bi ñoom lañ koy defee. noonu lañ koy defee noonu lañ ko bëggee seen yaay loolu lañ ko bëggee. defoon nañ benn téléfilm bu tuddoon Ibra l'Italien. Mm-hmm. mais pourquoi parce que les mm-hmm. gens ils étaient concentrés sur ça man foofu laa wax ak yow mm-hmm. waxuma la dañuy am valeur wala ñàkk valeur. foofu laa doon expliqué man loolu laa expliqué ma ne pas été démontré nulle part. d'accord société Sénégal. ñoo am seen yenn xalaat. gëm ne sénégalais yi fi nekk ñoom ñëpp ku nekk yaa ngi rêvé am jëkkër joo xam ne mi ngi bitim réew. donc je comprends fi ngay waxee. mais man je dis que man loolu man mosuma ko gëm. d'accord ki nekk bitim réew ak ki nekk fii ñëpp benn lañu. am na ñu nekk fii ñoo gën ñu nekk bitim réew am na ñu nekk bitim réew ñoo gën ñu nekk fii. Mhm. yaa ma dégg donc li may expliquer si foofu mooy bu fekkee que ak li ma doon expliquer ba nga ne ma loolu lan moo ko waral. Mhm. dama ne bu fekkoon man dama takk sama jabar nekk bitim réew man may góor. ma wax ko au début ne góor bi am na possibilité moom du yéeg mettit boobu. Mhm. parce que am na possibilité am fa loo xam ne moom mi ngi koy def te jabaram sañu ko def. dëgg donc ma ne boo xoolee li si gën a ki si gën a perdre c'est toujours la femme parce que des fois tu vois jigéen boo xam ne jëkkëram dem na rapidement. un an deux ans jëkkëram am foofu kayit mais du ko bëgg a indi donc est-ce que femme boobu dafa war a toog continuer parce que jëkkëram mi ngi bitim réew ne ko non non yow mënagoo ñëw am naa samay kayit mais foofu ngay doog toog toog toog toog toog mhm. est-ce que femme boobu dafa war a continuer muñ mhm. wala dafa war a ñaan divorce ñëw fan papa papa nañ déglu ba mu pare ba mu sa jëkkër bu fekkee dafa nekk bitim réew mhm. sa jëkkër am kayit waaw ba pare. waaw moom mi ngi bitim réew toog. waaw nekk si lu ko neex. Hmm. est-ce femme bi xam na jëkkëram am na këyit. Hmm. te jëkkëram ne ko doo mun a ñëw toogal sama kër ndey ak sama kër baay ba ma bëgg la indi. Hmm. mais bu toogee ay cinq ans. waaw huit ans munul am këyit femme bi munul def dara est-ce boobu c'est normal. nit ak nit wala nit ak sentiment. ndax war na mën a toog di continuer ne day muñal jëkkëram jooju. bu demee forcément su amee kayit rek da ko war a yóbbu. papa papa débat bi instant bi il faut que. il faut il faut ñu calme un peu ba ñëpp mën a jot seen temps de parole. d'accord Ben c'est bon yóbbu bi du forcé. c'est bon. non c'est pas bon. ayca continue. parce que c'est pas intéressant quoi. j'ai mhm. même plus envie de parler. tey moom dafa il est sur les nerfs. d'accord on est désolé Aïcha euh, Aminata ñëwal la tant que may ñëw ci Sophie. voilà Ben il a raison hein mais il faut juste lui expliquer une chose il a juste euh, bon euh, on a mal expliqué xam nga àdduna moom mooy loo xamante ne dafay am ay contexte. contexte yi dafay évoluer selon les temps ce que tu as expliqué ça existe bel et bien parce que tout simplement dafa amoon jamono boo xamante ne contexte oui je vais en venir incha allah contexte jamono fi mu toll woon mooy tout d'abord nekkul sax que ni euh, am borom kër wala copain bu nekk extérieur mais sama mag mi ngi extérieur rek sax la la woon parce que tout simplement nit ñi ñëpp dañ jàppoon ni xëy na ku xës ba génn Sénégal tukki rek tekki nga donc bu amoon ci biir kër sax waa kër gi dañ ko daan tiitaroo noonu la la daan nekkee tiita ci nga xamante ne dañ daan am borom kër boo xamante ne dafa nekk extérieur kooku nekk ci tiitar ci borom kër gi wante dafay nekk tiitar ci ki nga xamante ne moom mooy ay yaayu soxna seeg ñooñu mhm. ku nekk di tiitaroo man kat sama goro mi ngi bitim réew parce que nag foofu la jamono toll woon dafa mel ni tey ci fi jamono am na benn moment boo xam ne fan la jamono toll woon moom mooy jigéen ñëpp dañ daan ut jëkkëru tubaab mhm. donc monde bi moom moo am ay contexte yoo xam ne dafay évoluer ba foofu noonu donc nag le monde change bien vrai que jusqu'à jusqu'à présent tey soo xoolee sax ba ci ay tooñante dans les réseaux sociaux su période vacances yi jotee qu'est-ce qu'on tey leen seen copines yi moodu moodu yaa ngi ñëw pour dire que ni su ñu ñëwee ils ont tendance lépp dafay facile ci ñoom genre du anti valeur du anti mais tukki moom moo nekk sax boo xamante ne ñëpp dañ lay yaakaare ku nekk dafay daw songu si la tukki moom moo am tuut bu mel noonu léegi nag sëy ak ku tukki c'est question de choix euh, responsabilité personnelle la tukki dafa nekk loo xamante ne euh, euh, du du lu ñu mën a limité dañuy naan nit ki jaam demam la xam wante xamul ñëwam sa amub këyit nekkul ci àpp sa tekki foofu amul app wante aussi tamit sa dellu si ak sa yóbbu sa soxna wala sa borom kër amul app li am app xam nga moom mooy lan yow def nga sa choix bu euh, sa choix am nga jël nga sa ay responsabilité da ngay gis koo xamante ne bi muy sëy borom këram dafa dem un mois après yónnee ñu may ko kooku toog na 10 ans di ko xaar gisu ko léegi nag problème bi nekkul que ni si est-ce que da ngay toog ba tel délai soo ko gisul nga ñaan baat. non non hmm. non non non hmm. le problème ne se trouve pas là-bas. Hmm. xam nga lan la. Safia gis nga coow li bu amee ba.